boo gisoon na la aussi tamit nga <laughs> yaa ngi xam nga lan ngay <laughs> retaan attaqué moo la de ah aussi affaire Bocar Samba Dièye bi boo nga actif si de trop euh, Bocar Samba Dièye at waa CBAO booy mu affaire bu yàgg euh, mbir mbir fan fan la toll léegi Bocar Samba Dièye boobu est-ce que retrouvé wu na ay droit xam nga Bocar Samba Dièye dala na gagné tout récemment gagné na waa Banque Atlantique mais imagine dans ce pays banque taxaw ne dama lay jox prêt nga jox ko say garantie mosul positionné prêt bi musu ko positionné xëy nangu bagage yëpp dem jaay ko yi nga ko joxoon garantie mais c'est extraordinaire ça ne peut exister qu'au Sénégal Banque Atlantique reconnaître na ni moom mës ta positionné prêt expert bi reconnaître na ni mës ta positionné prêt hmm. Bocar Samba Dièye nee na mësumaa jox xaalis. ah mais lu mu commencé woon tabax ko non c'est-à-dire que xam nga boo bëggee pare da ngay joxe ay garantie. waaw mais commencé woon na tabax. après non c'est-à-dire que moom ay garantie 600 millions la joxe. waaw avec la banque atlantique. waaw garantie 600 millions la joxe. banque atlantique jël garanti dem jaay ko. non man waxuma man waxuma banque atlantique de man affaire bi CBAO. non dinaa ñëw ak CBAO. dinaa ñëw ak CBAO pour vous dire que la gravité banque bu la mosul jox pare jël say garantie jaay ko mais nag juge yi dañ ci am place de responsabilité parce que juge bu la wóoree ni ñaar ñii taxaw. kii musu ko jox jël na ay bien garanti ko da ngay àtte juste mais bul ne avocat bi ay article yi mu visé yi mu kii moo baaxul foofu la ñuy condamné yenn juges yi mais CBAO question CBAO question de délinquance la sàcc c'est du vol en réalité <laughs> il faut ñu wax ko loolu parce que banque ñëpp xam nañ ko booy dem di contracter prêt mais dinañ la signaloo ay këyit yoo xam ne du jeex banque kay leneen nga koy reproché waaye du këyit ngay tappale ñëw ne joxuma mu ne la këyit baa waaye joxuma banque bi mënta génnee këyit bi jox naa la ba pare mënta génnee këyit bi. mais mais affaire bi ñu naan këyit bi dafa réer. tappalekat bi. non boo ko Samba Dieye moo daan dama maa ko dencoon feeñ na. Famara boo ko Samba Dieye moo jëjee ba saag mu ne moom dafay arrêté parce que amatul ay moyens pour continuer. oui non c'est-à-dire boobu commerce bi la xam nga Bocar Samba Dieye comme la vie chère bi ngeen di wax nii xam nga Bocar Samba Dieye bu muy nekk importateur de céréales de riz saa yu état amee problème comme ñu mu amee ni vie chèreté bi ñu bëgg wàññi ci Bocar Samba Dieye la ñuy dem. ne ko góor gi ceeb dafa cher dañoo bëgg nga wàññi ko bu ko defee moom daleen naan joxleen leen ma ay policiers jox leen ma ay gendarmes ñu encadrer sama vente pour que yeneen commerçant yi bañ a mer ñëw dóor ma fi perturber ma saccager sama entreprise. moo tax Bocar Samba Dièye saa yu ceeb yokkaan wala état bëgg wàññi ci moom lañ ko doon jaar mais Bocar Samba Dièye léegi amatul parce que ba ko banque bi di toroxal état da koo seetaan ba banque bi toroxal ko nangu ay bien ba amatul dara. génn na ci importation alors que importation li ko war a jox ay patriote mhm. importation de denrées de première nécessité dañ ko war a jox ay patriote Bocar Samba Dièye dafa nekkoon patriote jamono jooju ceeb rek la Sénégal doon dundee mhm. bu ñu bëggee wàññi denrées yi nekkul sax si yeneen yi si ceeb bi la ñuy mettre l'accent te Bocar a ko doon wàññi te ñëpp mën nañu ko témoigner mais léegi ay ndanditee fi ne léegi ay ndanditee fi ne ay bon mu ngi sant yàlla mu ngi diggante tribunal ak këram. parce que il fait toujours du commerce waaw oui mu ngi yéeg di wàcc. xam nga li ngeen xamul mooy. Ah, banque kenn du ko gagné Sénégal. banque kenn du ko gagné kenn du ko gagné Sénégal très bien banque da tooñ bu nga xamante ne dëkku dëkku dëkku dëkku droit la banque da lay tooñ doo ko gagné Sénégal c'est-à-dire que moom bu la tooñee euh, yow boo ko tooñee moom da lay gagné Sénégal day jël nangu say bien dem jaayi ju ko say kër ak yooyu dem crier jaay ko bazarde ko hmm. mais moom bu la tooñee nga gagné ko ci suñu tribunaux yëpp day def appel CCJA cour cour commune de justice et d'arbitrage bi nekk Abidjan yow boo amul moyen pour jël avocat fay ko fayal ko ay avion billet d'avion fayal ko ay frais d'hôtel pour mu dem foofu défendre ce dossier da ngay ñàkk

fenn fii léegi nag état moo war ñu nee nañ ko il faut mettre en place un fonds destiné à payer les frais de procès yow nga jiite ko quoi waaw